ci daral fora laa nekk euh, ñun nag li ñu woo ci conférence de presse bi kër chef Alaaji Harouna Sow ñoom ñoo ñoom ñoo yor koom-koom bi nekk ci biir fooraa bi dafa am lu ñu nakkar nakkar boobu nag dañu bugg mu wesaaru ci biir senegal yëpp sénégalais yëpp dégg ko ñu xam lan moo xew foora ñu xam lan man man problème moo foo kew mooy problème bi foo xew mooy dafa am fora bi dafa am ni mu doon doxe fora bi dafa dem ba xam ne fi mu nekk ni ñun xamatuñ ci lan la ñu nekk saba dem nañu ba xam ne li ñu xam ne dañ ko tegoon foofu ci fora bi dañ ko tegoon pour cas social cas sociale bi ñu tegoon nag dafa dem na ba xam ne léegi forcing lay doon dañu degoon foofu dafa am départ bi lu ko indi woon mooy dafa amoon miir bu yàqu woon foora miir bu daanu woon boobu biñ koy commencé def ñu ne nañu def oto bu ne 2000 francs boo defee 2000 francs ñu defar miir bi ba pare ñu bay gars yi defar miir bi ba pare ñu continuer di ko encaisser loolu presque ça fait ëpp na vingt euh, ren nag ñu ñëw bi ñu ñëwee ñoom ñu monter commission bi buñ ko monter ba pare ñu ñëw ñu ne bu joge Sénégal bu ne da ngay fay teet bu ne da ngay fay téeméer teet bu ne da ngay fay téeméer léegi nag mairie day ñëw encaissé juutam ba pare ñun ñu bind ay le bu ñu ko waxee ñun ñu bañ ñu bind leeteer maire ñu bind gouverneur ñu bind ministère de ministère de ñu bind ministère de l'élevage ñu bind préfet ñu bind gouverneur ñu bind ñëpp acteurs yi ñi nga xam ne war nañ ko yëg yëpp ñu yëgal leen gars yi continuer di ko def léegi nag borom nag yi taxaw ñu ne ñun ala mukk duñu fay téeméer mënuñu fay téeméer mënuñ ñëw ñu fay juuti na par tête nag bu ne téeméer fara ñu ñu delluwaat ci biir fora bi ñu ñu ko ñu ñuy fay téeméer ñi nga xam ne xamuñu fan la ñu dugal xaalis bi même 2000 francs bi ñu doon encaissé xawuñu bila kenn xamul fan lañ dugal xaalis ñu doon joge Mali ñëwatuñ ñu doon joge Mauritanie ñëwatuñ ñu ne même tabaski xar xar bu affaire bi bañ ko arrêté wul tabar xar xar sax du fa joge tabas lepp lañu té même ay fas yi doon joge fo fas yi doon joge Mali sax ñuy dugg Sénégal fas yoy sax dañ koy wacce ci frontière yi dañu néne li nga xamné day joge ci Mali wala Mauritanie du ñew Sénégal tant que problème bu réglewul ñun nak ñu ngi interpeller président euh, Macky Sall ñu ngi koy interpeller ci problème bi na xamné fim nek ni assan bi sonna na tey trois euh, tay kilo yap mu ngi jar 3500 pour nga gis yap sax problème 4000 francs ci employé te loolu lu leen di tax ñuy ñuy xey di fa di fa daan seen dool ñuy am seen dépense pour nag yi ñëw léegi xam nga ñun li ñu yor ci ay jur ñu ngi koy méttirlu ñun tamit ñu ngi koy méttirlu ñu ngi ñu ngi koy ñu ngi koy laasé sénégalais yépp pour ñëpp jox ñu saf ñu safaar loolu ñun nag ñu ngi interpeller président de la république ñu ngi interpeller ñëpp ñi nga xam ne war nañ ci wax te ma wax leen kat encore ñi ñi doon waxal yépp ñi ñi doon war a waxal waxal na wax nañu maire wax nañ sous-préfet wax nañu préfet wax nañ gouverneur wax nañ leen ñoom ñëpp wax nañu leen te man man man xaw ma mosuma gis nit day taxaw mu ne la tey damay dugaat sa damay dugaat sa loxo ci sama poche nga euh, nga nga jox ma xaalis loolu man xaw ma nan lañ ko tuddee boo ma ko waxee keroog réunion bi ñu nekkoon à euh, sous euh, sous préfecture boo ma nee taxi ñu ne ma bu ko tuddee taxi ma ne kon ba dee bu dee du taxi ka agression lay doon. li nga xam ne ñu ngi koy fayeeku nit ñi ñu ngi koy fay par force ñuy dagg seen billet ñuy indi seen police police ñëw taxaw boo oto fayal ñu ne ko ñu ne ko génn ci bit ñun loolu la la mënuñu ko comprendre. ñun leen di daggloo taxi. du waa mairie oto bu ñëw da ngay fay waa mairie du waa mairie waa mairie moom dañuy fay dañuy fayeeku seen taxi ba pare. ñu nekk ko ci waa daral bi mooy commission bi ñu dee toog ñu. mais commission bi nee na yéen 1000 francs la ñu waxoon euh, tête bu nekk. Euh, ci liy jógee ci ci nag yi mais dem nañ ba ngeen juboo ci téeméer. ma ne man mi ngay waxal man ak Aaron Sow ñoo demoon ci réunion boobu bi ñu proposé téeméer ñu proposé dañu ñu tegaay bi ñu ñëwee awaa ñuy wax mbooloo awaa ñuy wax waa daral bi waa daral bi fekk dégg nañ information bi ñoom ñoom ala mukk ànduñ dañu téye seen jur duñu fay benn benn téeméer duñ ko fay tant que dindi wuñ taxi bi nag du fi dugg. tant que dindi wuñu taxe boobu téeméer boobu bi ñu fi teg ci nag yi même 2000 francs boobu boobu yëpp nañ ko arrêté nañ ko arrêté ba ba lépp réglé ba réglé bo pare biir dara waa daral bi ñi nga xam ne ñoom la intéressé wala ñi nga xam ne ñoom ñoo moom jur yi ñoom ñoo ñoo accord ci lii ñu def ko kon nag tant que borom jur yi d' accord wuñu nan nga koy mën a defee. waxtaan ak kenn maa ngi ni man Demba Naar laa tudd ku ci ne waxtaan nañ ci ak ñun. wala ñëw nañu boo ñu taxaw seen commission ndax woo nañu ku ci ñëw naa indaale kaamilam naa sa naa naa jàpp ba mu set mu indaale kaamil li ñu wax dara amu ci dégg bu dul ñu ngi bëgg am ci ko alal ci kaw nit ñi nañu dem liggéey comme nit ñi nit ñi def li Maliens def ak Mauritaniens daan seen doole nañu dem daan seen doole liggéey. tax yooyu ñoom wax nañu ni tax yooyu ñu kenn defal daral xam nga maire maire moo war a defal daral gouvernement moo war a defal daral gouvernement mu ngi fee mu ngi fee Sénégal yëpp. Euh, benn taxi taxi par tête deux cent francs lay doon par nag fora rek mo am téeméer teme même ñoom loolu moo ko ñoom ñoo ko créé léegi presque boo xoolee daral bi mun na génn deux deux cent cinquante mille par jour wala trois cent mille par jour loolu kay xanaa boo demee ci caisse état état war na war na war na mën a defal daral war na mën a defal daral c'est téeméer bi ñu encaissé ñoom li ñu wax dañ koy mbubbo ñukoy wax dara lañ koy defar wala cas social wala nangam wala nangam kon dom jëm ñi ko ci cas social ci sen poste lañ koy jëmé jëmé wuñ ko ci cas social ci sen poste lañ koy jëmee ah, am na lenn lu tamit lu am solo mooy ci ay influence yi ngeen di def euh, yu ñu jàpp ni yéen da ngeen di influencer maliens yi pour ñu bañ a indi seen nag yi ndax 1500 la ngeen ne ñoom loolu la ñuy eh, bu de bu dee ñun dañ leen di influencer ñoom lañ leen influencer ñun kay influencer ñoom kay ñoom ñoo leen di fayeeku leen xam ne mënuñu ko fay ñu ne fayuñu ñu téye seen jur ñu ne tànk deñul du ñu indi seen jur ñoom kay kenn infiliage yu leen nit est nga nit mën nga infiliage nit bul indi sa marchandise nga jaay hein loolu wa wax boobu yéenuwul maana sëriñ bi nit booy booy déglu wax da ngay déglu wax bu yéenu maana xam nga nit mënul infiliage nit pour bul bul bul indi sa jur nga jaay loolu kenn mënu ko infiliage nit ñoom kay li ñu nit ñi mooy ñoom ñoo leen teg li nga xam ne mënul munoo fay mairie téeméer nga wëlbati kadi nga fay nga fay waa daral kadi téeméer fara ba nga xam ne kenn amul fu mu koy teg président Macky Sall moom dafa defoon douane douane moo fi amoon euh, chaque tête 4000 fara la doon fay gis nga journée de l'élevage di njum ci la Macky Sall taxaw ci journée de l'élevage boo eboo nga dem uuti liggéey boo eboo nga dem uuti liggéey douane boobu dindi naa ko pour yàq président Macky Sall pour dégg loolu xam ne askan bi sonn nañ te ñu leen di te bu ñu koy waree wax yëpp wax nañ ko. loolu tamit waxtaan ngeen jëm ba daal di jubóo mais yéen tamit ngeen taxaw ci benn position boo xamante ne daal dafa mel ne da ngeen di li nga xamante ne commission bi moom la teg. xam nga lan ngeen fas yéene ba problème yi xew jamono ci fële ca dara moom mu xam nga xam nga xam nga li ñu bëgg dañu jaxasee li nga xam ne bokkul xam nga sëriñ bi tey ñun ñu ñun ñu yor suñu kees ñuy cotiser. nga dem ba ci biir xamatoo fan lay dem naa duggal kees bi war nga taxaw seetlu fan laa koy duggal. gis nga dara dañ ko war a def transparence li nga xam ne ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp dañ ci xara tiim gis nga loolu nekkul problème commission xam bi ci lañ koy jënd li ngay wax ni affaire tegaay gis nga loolu Afrique yëpp la nekk daral yëpp la nekk gis nga loolu xel nit ñi gis nga loolu mënuñu ko tere gis nga tegaay nit ko xam ne da ñëw ngay dal ci nit ki mu lay jaayal sa nag mu lay jox fi ngay tëdd mu lay jox ngay lekk mu lay jog ngay sangu muy dem dala feyekul sa nag muy muy def gaz waalam wala muy dugg ay oto wala ji jël taxi loolu dañ koy waxtaan beñ ci jubóo loolu daral yëpp ko am. kon yéen da ngeen bëgg tey lépp mu jaar ci yoon lu daral bi mu jaar ci yoon. gestion daral bi la bëggoon ñu jaar ci yoon lu muy jaaree ci yoon. mooy nañu ko nañu ko arrêté yëpp bañ ko arrêté yëpp ñu toog ñi waxtaan ci taxi yi ba ba ñëpp ñëpp waa daral bi ñëpp ñu xam ne suñu xaalis fii lay dugg fii lay dugg bu dee deux mille francs wala mille francs wala téeméer lañ ko cotisé par jour wala daral bi fekke am na fu muy lu muy yàqu nañu ñëw ci comme Arona mu nekk yow war nga indi cinquante mille ñu defar lii loolu loolu mooy transparence ñoom li ñu nekke mooy ci xaalis lañu ñu ut ci kaw nit ñi